na ne Modou Mbaye nga tëddee mbapat comprendre nga mbër bu si ñëw pour mbapat da nga am problème mbër bu bëgg daal da nga def li Modou def bu tekk da nga tax a sa njëriñ ñëw bëri Modou mais ku si tekk am na problème leen di defee baa leen ziar baa leen jëndee nag xam nga daa si gën a xawoon a xat mu yoroon toog mais xam naa yàlla dëgg la ko mais fan yii rek dinaa ñëw incha allah. waaw di kontaan rek di kontaan ci amateur yi ndax xam nga war nañu wusu la yomb tey keroog boo ko fee sax bi ñëpp kontaan nañu amateur yëpp kontaan nañu te amateur loolu la bëgg dafa mën a dimanche bu añee ba suur nag ataayam taal otoom sol sol mu rafet xëy na neex nga ko tàkk neex comme ni ko sëriñ bi di tey comme daan nga loolu nag lañ ñëw amateur yi vraiment bu ñu tëgg dañu bëgg a tëgg lu neex loo xam ne amateur yi dañ ci kontaan. loolu la sa doom la am na combat. wala loolu. nee na jamono suñu neex waa bi ñu yore ñu ah wala ba sëñ si. loolu yàlla ci yenn mbir ñoo yore rek incha allah bu soobee yàlla xam nga loolu mu ngi si wàccaay bu baax bu soobee yàlla am nañ yaakaar bu baax dinañ am ndam te ñu ngi koy ñaan yàlla suñu borom lan la ñu ko may. soxla nañ ko daal. parce que ay waxu noonu loolu ay waxu mbébé rek mais ku ñëw si géej gi su lépp dëgg la li nga doon wax lépp dañ koy fàtte bu soobee yàlla. non xam nga la ak ak ak tacticien comprendre nga ki day dem tekki mën na kenn du ko kenn du ko jàngal kenn du ko wan kenn lu muy indi rek incha allah dina def fekk foofu la. non Modou Modou Modou tey mënu ko merloo Modou léegi Modou léegi màgg na Modou léegi màgg na léegi boo dee xam ne Modou màgg na te day mbapat comprendre nga mbër bu si ñëw pour mbapat da nga am problème. mbër mu bëgg daal da nga def li mu def bu tëkk da nga tax a sa njëriñ ñëw bëreeg Modou mais ku ci tëkk am na problème. pare nañ pare nañ bu ñaan yàlla rek moo ñu ndam mais Modou lépp lu woon def si wàccaay def na ko parce que wax nañ leen daal wàccaay bi continuité la woon quoi mais da doon préparé Ama Baldé en même temps di préparé Boy Niang comprendre nga kon Modou dama bëri euh, trois jours rek la si teg trois mois entraînement yi kon ku ñu xam ne Modou moom daal pare na daal pare na pare na macha allah. waaw loolu la mën na pour jaay seen aussi xam nga tamit parce que promoteur bi nga def bu ko ñëwee mbir mbir mi mbir mi dina def ay xeet ay semaine semaine ñoom xam nga pour jaay seen baax aussi boo ñaa loolu la mën na te boo ñaa c'est un grand champion dafa daan ba si fii te te bu waree bu waree day wax waajal dara le premier du mort le premier jaay ko baax mais xam nga comme ni ko gars yi di waxee rek boo ñaa dara xam naa ne moo moom diggante quinze heures ba dix huit heures mais du moo ma jël koy moo doo ko moom soobee yàlla. Jërëjëf la jërëjëf la. suñu lépp Ibulaay waaw day taam kon ñu daal ñu lay dégg loxo waaw incha allah dëggal mu combat bu ñu toll nii si côté sonal nañ ma non su ma déglaate combat da ngay bëri billaay wallaay maa la wax am combat kañ am combat non yow déglu ma naa la woo su li bilaay Ibulaay la ko àdduna jàppale billaay wallaay xala la ko day liggéey nangu naa liggéey non da ngay bëri ñu lay jaajëfal naa la kóol jërëjëf ah waaw ñi ñi xam nga ñoo bokk parcelle ñoo bokk lépp comprendre nga mais bu soobee yàlla buñ jël mayatee si ne dee si dugg incha allah waaw da ciy sëb yu baax a nii da nga da nga rek da ngaa tàggatoo mu defar ko maa ngi ñaax. da doon tey par rapport ak loolu moom chaque fois dañ koy joxe rek parce que tey boo xoolee tey combat bu mel ne Zarko Dieng rek amoo benn sponsor société nationale boo xam aw métti gars yi seen ñu ndaw ñi parce que ñun ay ndaw lañ ñu ngi tëdd ay ndaw lañ boo xoolee instant bi ay xale rek a fi nekk donc ak tuuti li nga la may bu koy boole ndaw ñi tamit gars yi boo ñu accompagné ñun tamit ñu mën a ñu mën a dama bëgg ay lamb amateur man dama bëgg su ma tëjee lamb amateur ñëpp kontaan maa ngi préparé benn journée espoir boo xamante incha allah bëgg naa ko demee fële saison bu soobee yàlla incha allah waaw maa ngi koy togg mais il yi yi jeex ak si kanam xam nga non non dëgg la si jàpp nag parce que sama journée bu jaayee yéen a si def lu ngeen mën xam nga te tey promoteur loolu rek la bëgg moo tax man man journaliste yi ñoom ñëpp leen ay waay lañ parce que yaa ma gën a xam bëri na à très bientôt incha allah di ñaanal yàlla Modou Lo le premier janvier incha allah bu am ndam bu tëdd buy buy buy ci barke Salaam salaam. non xam na ko si xool parce que moo njëkk a dem ama neex génne ko ak ak bëri mu génne moom mais sant yàlla rek moom champion la waaw lii lii lii da ngay bëree moom Bébé nga ko yegg fu sori ko daan mais li may wax rek war a daan sant yàlla. Bébé a euh, bëree mu bëree mu topp mooy maam mu sax boo gisee da ko benn bennal da ko benn bennal xam nga dañoo bëri mu sànni ay ñu weccoo comprendre nga waaw defet daal moo ñëw waaw di ñaan yàlla xam nga mu yem fi comprendre nga waaw li si des doon ay victoire ndax xale la te champion la nit ñi dañ yaakaar si moom. Hmm. Magic wala bëri suba est-ce que Malick Magic bu bëri waale loolu tam du diis ci moom. non sant yàlla dañuy ñëw rek parce que dañ ñëw ñun ñëpp di bëri di daan waaw ñun ñaanal Magic suba incha allah ñu am ndam Baba Diaw réussir journée bi ay Serigne Ndiaye Ibou booy des vraiment sant yàlla waaw lii la ñu yàlla séddee dañ nangu rek xaar lu mel. jaajëf jaajëf.

di lépp lu ñu def ko defal ko def ko def ko damay ñaan ko bàyyi ci ñoom ñëpp kàmm gi mii nekk si club bi damay ñaan yàlla may ko mu jox leen bi ñu gëm ñu kenn ku dul topp ñu ñoom lañ gëm. dañoo dañoo jox seen am xam ne ñoom ñetti écrit ñoo fa nekk. écrit tàggu ñëpp mobilisé écrit yoo xam ne ñëpp mobilisé. non nañ bàyyi si rànd yi nañ bàyyi si rànd yi. bàyyi bi ngeen mu ñibbi Guinée. billaay wala talaay xam nga. odo odo la odo ñu la. saa yaa yaa yaa. barki yaa rasul la. Girido Girido. billaay wala Bébé Diène Bébé Diène noo ko jàngal géej amul loolu. dama ne doo doon ay jafe-jafe ci dund la jàngee géej amu ko. kii daf ñu réeré may tax xool ñoo ngi doon di ziar. ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw mais du du ñu na làmb la rek xam nga mais boo xoolee am na fu mu jaar même ñëpp ñu respecté la mais tey li jaadu rek moo am am na xam nga teg ay coono yu mësul def si carrière donc lii rek moo mën a doon. daanaka coono yu mënul def ci carrière c'est-à-dire. li mu liggéey si combat bi wallaahi asim ko liggéey ci combat xam nga dañ liggéey.